بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أمدا لرب القادر الفعال لمن يسعى من الأحوال سبحانه من وائد الآر مدبر الأمور بالأدوار ثم سلام على خير البصر محمد سنة أولاد مضر ولا وصحبه لأحبابي وتهدي مدة اللقاب وبعد ما نجدل سنت يلا أكن تقان لجوي خل نجريلا أقول بكار والمام جايلا sëriñ Basiiru Mbàkke moom laa dayloo Bamba ko def mu doon mbégam muriidi te mooy dono mooy njàqalel mariidi an ngarana min xablu day nag baax le wa yàdd na ak mbonam ngi war na Mbàkke waraale gañeef kono ca kokki bis ba sëriñ Basiiru génne Tuuba fekki sëriñ bu mag ba sañcoon Tuuba kajoor di jooy mbaakol ñu ñëpp ka daanu waalo di walwaliin bawol ñu kaanu góor ak jigéen ñi yuuxuy werweri xoli jiim yaak baay yëppi warwari la dalee biir Jurbel baak saalum ñëpp a dem ku nekk fa teg baaxam wata ya defu soq mel ni màggal joyoo badal kenn talatul ka mu àndal sëriñ saak donga yi ñépp a booloo di war faraw de tomba maa ko wóolu bisu keroog njàqare dañ na Sénégal naqar wa am keroog mani fu ko misaal soo xalami dem ak rasuulullaahi ak saaba yaak Seex Bamba doon na leexi xamal la génne jooja waay fa tay ba génne sëriñ Tuubaa fa Jurbel bis ba du bàyyi seex basiiru sax fa tuuba naqaru dem gi na saxal bisam ba bii bis la sëriñ tuuba rañaane daaru jëm ndar murid yi ñépp bokk waaru ci ama jëy sasim la mooy lelem ba lee taxoon mu fab saayir sak batin ba fajar ci rakki gàmmu bis bal tene fukki fan ak ñaar mbir ma àgg naa fu ne gox yëpp yëpp àndandoo di yuuxu góor ak jigéen ñi daw ñëlee ngay waaxu bi bis la Seex Basiiru géddi àdduna ngir bon ngaak war yamu làmbo ëpp na war na dameel yaak te njaag jalaab ya war na dag yaak waa doola yaa kàngam ya war na xulaafa ya ginaa rasool war na waroom ya ngir yeb leen ko wóolu banaaw maayata ginaa sadiixu ak saydil amar may faaruuxu yor na xilaafa gi def di dindi ayaati at aduna xëy leen dindi banu abbas mbokkam rasuulullaahi yor na mbir may ati at lilaayi barsàq xëy faab leen njaboot ga saawaan mbir yëpp nii la mel du caaxaan bii bis la yàlla génnee ruuga Tuubaa yóbbu ko barsàq mu dem ndëg Bamba ru yàpp nekkoon keroog yàpp maare di teeru ruuga yi soqin te xawaare barsàq jël na waa ji am tiraanga moo ni fegul tey ak ëllëg yaraanga barsàq jël na waaju làq xam am musu def itéem ci sàkkub am am barsàq jël na waaju maqaama sang ba faw ku kuy borom maqaama barsàq jël na waaju am ji aajo am ite am ngor balaay sak saajo barsàq jël na waaju sopp Bamba sopp rasulullah ima yonin ba mos la def njomme du fecc wëllëre moo sel moo selal wala imoo gore moo yaatu moo tabe te moo di docteur moo daa saafara li bëgg a yokk aw toor ku fi deeti def islaata saatal bayni mu di liggéeyam faw doona may ni te du ca dàcc mukk daaw naagu loo gën a nax mu gën a teey gëm naa ko waa ka sëriñ bu mag bi moo leen boole di leen defal fu mu tollu moo am doole yaram naaw naaw teral naaw mag abal ko ci lu mu am talaa ko jox mu yëg ko jooy koom war ngi lim def ci réew mi manii fu koo lim ardo yokkal meew mi ñépp a ngi jooy lépp a ngi jooy foo tollu ndegu murid yi di ko jooy di beslu jumaa Jurbel di ko jooy kaamil ba mag ñi ko yoroon ñépp a jooy kamaal ba tey ba ngi jooy sunu waa ji góoru Mbàkke ku nekk a jaaxle jooju waay moo tekki su fi juróom yaar asamaa wi juróom yaar lépp a ngi jooy jooju waxtu bàkkaar jant a ngi jooy weer a ngi jooy ba muuru bidiw yépp a jooy sëriñ ba siiru gàncax gi saxaru na taw bi manki njanaaw ya garab yi doon na sakki lépp a ngi jooy ngir xarit ak borom kun wéetal na leen ku sopp ngeen ngi yónneen déglul ma wax la demam nga ndax nga waaroo ci weeru di giw kam mu lëmbër ma muuru aljumaani tibal yitte juróom yaar la mu jëjëriñ jumaa lool day na ku waar ba mu demee fekkoon na mbar may xutbu alaaji Fallilu ku sopp Bamba ba mu demee fekkoon na mbar may xutbu alaaji Fallilu ku sopp Bamba mu dox xutbu ba ngir war maal ko ba mu toog mu dellu baamtu man yem naa ko ba mu salmale la dem siyaare bamba ndekete day taggooj ak saaram ba jàll siyaare xalifa Mustafa Sëriñ Basiiru Mbakke naa la Mustafa dug wa taam ba xaj pencum Tuuba cam daaru minam te nu roog baayam ba jumaay Tuuba daldi jooy ba xaaju ngir xam ni dootu dellu si gëm naa waa jooju xoli warom Basiir yebbi war wari dënd bi gooy fiti njanaaw yi ferferi baasamaa si sayu xini nax saay murid yépp a jaaxle cay joojale waay bur na yaari weer yu manki tuuti ngir ga defal dong yokkul joote ci rakki gam la rasulullahi ànd ak borom tuuba bismillahi bisat ci biir la ñépp yenn tuuba jàng naa ko ni mal abda yaay ayooba di fukki bam ak benn guddi altene la nu rañaan xabrooga bis bay altene ku sikki sàkk li yaral taarix ba bay limaan ja def ko sopp bamba في ليلة الاثنين ربنا خدا لساخنا البصير ما له اتبع في يد من إنسان رد أي وسس في عذر ساعة تفتش إلى بيت لا دف بمي جروم يار يلا نفي دس ويرلو ياك دي نوار أبيبس لنو جل روغا يوم cika rasuulullaay gene tuuba barsak ñaa ngi koy lalal di teeru waa Mbakke ngu soobe ñépp a waaru aljanna waaj di teeru ruugay iidu wa umrahu ilal jinaani yiidu jundun min al malaa'ikati al kirama ñaanda ndoog jibriilu bi kirama di jël si ruuga waaras di sabaa jigéen wër lay ni ñépp a naa ñu bi bum di abal di woote naa tabi leen lalal ko bu maa joote Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha ak baayam ba ñoo koy teeru ci fursin marfootin lañu feeru Cheikh murid yi ñépp a teew di jooru gis boog muqaddimaat gétem yey tuuru soo ko gëmul yoral jawaab bamba ci ahmadul badda ca sunna day ba wax na ni ay malaayka ak jibriilu ñoo jël siruuga ahmadu maa ko woolu yóbbu ko aljana mu gis rasuulu ngir sopp gam mu sopp seetal loolu ñëgëm ku sopp bamba mel ne doomam taaw ci tànkam di xal yoonam mënee fu koolim fara yow na bii yàlla nañ ko sopp nun ba bañ koy toppi lii day na waaji waaru war naa waaru ba xamiram ca bis ba nuy tasaaroo jii guddi leen korob ca péncum daaru daaru mi nam xajam yépp a waaru alaaji seex mbakke alaaji seex mbakke alaaji seex mbakke danay seex mustafa moo doon a gangoor ga gëm na mustafa moo ko defar digle ñu rob ko foofa borom basiir la siyaar na foofa am na inaaya te jëful inaaya moo gore mbakke te mooy borom wilaaya mooy daani mustafa satub seex bamba moo tabe moo yaatu caatan yen ba seex safa teew keroog mënii fu kuulim seex mudu xabaan waaju sopp bamba teew na fa seex ahmadu awa balla teew na fa rakam je sibdu balla seex mudu maamun ñëw na fa rakam ya seex mudu jobe teew na fa ak jooyam ya doomi sëriñ bu mag bi ñépp a booloo say keroog cay la fa teew ci mbooloo Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke moo ko ñaanal sappe sa di taneef ku di laajal waxtu robam Cheikh Bamba ak rasuulu ak saaba ya ak yonin yi ak jibriilu ñoom ñépp ñëw nañu bismil baari ànd ak maajiriina wala saara ca googa guddi lañ ko daldi sengal ku fa siyaare buur yàlla daa lay jéggal fekkoon na seex bamba defoon fa jàkka min xam ni jay sasin mu jublu makka sulu fa gaali téere defa xamtu laajal ko xam di wax sore naa fortu ci ñeenti waxtu mbaalu manqué tuuti lañ ko rob ca guddi neel ndaw joote ñu daali dellu seeni kër taawam ba wéet na keroog ngir diggam ak baayam ba xibaar ba daldi siiw bëreewi gànnaar mbedd yépp fotte yàlla lee doyug waar yoonu murit fitam wa dem muy rab rabi ngir xam ni gént na rangoñ yi sab sabi jël bi lépp a maase mel ne ab gént kenn xamatul soxlaam ca booba jant murid la mbaab xaadir la mbaab tijaan la ñépp a ngi jooy ngir yàlla mbaab ngir la ca yàlla la ilaha illallah muhammadun arsalol ilahu ca yàlla la ilaha illallah muhammadun arsalol ilahu ca yàlla la ilaha illallah muhammadun asalul ilahu salla wa sallama alayhi albaaxi wala alihi wa sahbihi latbaaxi adduna war nanu ama wam sasin delu waraat murid ama da sasin delu waraat nu ama wam sasin warami gooy naagu mu daali dellu si ñëgam sëriñ basiiru dootul yaale ku yaboon faatuñu dalay jaale bu gore doon tee faatu kon du faatu ngir ngor nga raw nam xel kile ka yaatu cay li mu def cay fi mu jaar fi suuf si moo getti góor ñi moo raw suuf si taalif nay téere mbàkke tabax nay jàkka sanc nay dend yu mel ni makka aalim la aabid la murid saadix la borom basiir la mbàkke tëmbar kaamil la aafis la am na ngërëmel baayam ba mos la joog sunna ngir yónneen ba am na ngërëmel mbër ma am di Mustafa ca booba fum fa mosaana tollu teew na fa bakkaroog mbër ma yi fa la maa jumaaja maa doon na moom jooja waay mooy waaja bamba ko tarbiya tofal ko mbooloo yebal ko saalu mbakke ñaan fa mbooloo mu daali way ba sanc tuba ak saalum fu mosa yendu ña fa teew ni maalum def na fa kawlax kër gu mel ni tuuba seng fa jàkka faf ko tudde tuuba def na fa kër lu jiitu moo xam sëriñ Basiiru Mbàkke xaw ma maasam mbaakol ba biir Kajoor ba jàll njaabur footu daaw turam ñu naan le mooy góor ku nekk maa la Seex Basiiru nee na ma moo gën a daj jamono kooka waar na ma góor ak jigéen defal na leen tiraanga dalal na seeni xel amul yaraanga tabax na kër yu xajul ci way wi ci réew mi foo bi dem si gël na yoon wi def na xalifa ngir ca nekkuk baayam la jóg na feeñ daali am ay gaayam Cheikh Bamba féetale ko wàllu saalum jébal ko am di Moustapha taawam baam di Moustapha defee xalifaam moo doon loxoom te fu mu teew mu teew fa ba magi bas siiw na ci réewi Sénégal ci turam ni Moustapha ni marijaal ba Sidi Fallu defee xalifaam moo féete woon wàllu Jurbel magam deefa ku nekk am na sa ngërëm bi jaay li xayri sanmi bi xayri nugri moo tarixal Cheikh Bamba moo maxraja leeral na siyaare tuba mooy borom daraje tagg na maaxuus abtidaanus mun yu fii min badi bisimillahi seet ko yow murit kileeri jawaabi Bamba am na seere yowmal xiyaam waaju ko sopp maare waaju ko noonu def defub seex bamba nga noonu ngir moo tax mu attan yéen ba seere si mooy am na ci góoru mbakke ku jox idaaya seex basiiru mbakke ba bamba ne jolof sëriñ bi woo ko naa ko basiiru loo ko jox ma gis ko amoon na idaaya ju jógee saalum weesu sëriñ basiiru jëm ca baayam seex bamba dal ni na ngeen ko delloo jox ko basiiru jooju waay di suulu mooy man te may moom fu ngeen ko seenu gis ngeen ma donga yépp bokk waaru li yaat fukk ak juróom la mu soolu sëriñ basiiru mbàkke maa ko woolu nekk di ari bamba daali koy jiital fexem borom tuba bu leen ko juutal taaram ba semmal na dana yankooba setami yàlla nan faw ko ñuñ yankooba dekkal na poroxaan tabax na barab ba sigel na soxna jaara dekkal taal ba melow na weer la yor tawal na jéere tawal na géej biram ñi lépp a béere yaa damm foo ko gis mu reela boole tabeek ñeme ba mel ne gar la wa dee kawam sariyatul mu ta ara jilloombu bam aqi atul mu nawara saa yu julee bay digle daf koy gàttal te lépp a jub daaw carax ay gaaral na kaw ga mel la biir ba mel du jortu ci ab jullit lu dul lu jub moo dektu borom mu jagle la te daawul jagloo wayaf loog torox loog wakiiru moo doon mbiram te ku ko tooñ mu baal la ku dikk mu jogal la ndakke ku xat mu feexal daawul di gaalu mag ñi di ko siyaare lu du ragal yàlla juboo tey maare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoon wi loo ko laaj mu jox la fu ñuy jëli di mbar mu raw xasaat yi tam ta suuf ba jiitu faf ya daal i kamba woon ca lukkumaan min xablu moom lañ ko jox bi sa kadaale kiilu ci leeri Seex Bamba la naan ba géejal duyal na aw nitam ba ñépp feesal samsul wara tim gari jaal Mbàkke sabati feex na Mbàkke yow yaa tekkiil Basiiru Faatima du Maamun semal na ña jiite woon gaaña dogal ba wey na ku mel ne moom dootu fi amba abada moo doon mbar ma mbar ma doon ahmada ilman bila muallimin la bamba wax sëriñ bexi la jaaje fi bamba ma wax la tuuti ci mbiram nga waaru ak i meloom segam ji soo moo taaru fu ma sa jekki ñaari jublu xibla te mel na weer ku am xoram la mag ak ndaw ak jigéen ku ñëw mu yaatal fajayteem ku weddi laajal durus kitaabu la ilay fanaane waxtaanu sang mbakke lay waxtaane ma jaay la weeru koor sëriñ basiiru mokk la deeti gunge ak di teeroo ci jàngi xasaayidam tey dégloo jàngulu tey ñaaxaate moo saranlu ma jooyle alxuraan sëriñ basiiru mokk la deeti jàng yaa kawaaru ayoon yoon ci genn guddi màggal sa mépp mbir soo ko gamu yow laajal ma jooya taalib bi sëriñ tuubaana doom ja ko don baatinam wa baana jagle gamoon ca diggam ak baayam ba mu nii fu kóolin waaye jël na yan ba bamba ko jox daaru minam filmar wi xamal ko mbóot yi tax mu leeral yoon wi foofee la bambay waaja war ci gaalam ilal jinaani ab xabaar la mu am abli safinatan bi kulli janna min daarayti mi nan yaasal mi na sëñ Tuubaa nag nee na foofu yàlla nag ma may gaal guy dëkkee daaru mi na sëriñ Basiru Mbàkke di ko koñ taalibe dugg ci daxal jànn bi xëy isaat yàlla na yàlla boole ci gaal googu abli safinatan bi kullil janna min darayti minan yaasal minna mboodem falam maneef ko waxtaane wareef ko biral la daalaw taane seeni mbir dabboonan seeni at yamoonan ñoo bokk mbir at yeyit nuroonan ci wam sasin la Bamba génn Jurbel ci wam sasin la Seex Basiiru gental at mu ci nekk neeñu guddik aljuma la tàmbale laajal ña fekke faat na ma ci yow ma lif nay ni lambar ma laqoo moom it ca guddik booba bis la laqu wa umra woo bilaayati bil minnani fil maqbadi maqbari daaratil minnan lam faam ci at yëral taarix ba laaye sumar la mekke seexi Bamba li ma atom ya la xalifa digle këram ya jàngal ko ko am na jàngale kër gu ci nekk nanu jàngalim ba la wax keroog am ku seet baatin ba mboolem yeneen ti kër yay faraxu li la ca mbër ma lëm ataanaal faraxu bisab sarax sa daa iray Ndakaaru ak kaw la réew yépp a boolo daaru bi jàngi taalibi xaadimu taa Seex Faali Jooro donga yépp naa waa daayira Jurbel yépp a boolo di yóbbu ay boole keroog ndaw mboolo